alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ixwatal aida assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk ñu nuyu ñëpp ci nuyu lislaam ñu ngi dellu si ci seen jotaay bi ñu tuddee al askar di ubbee wax ji ci sant yàlla ginnaaw bi ñu musloo ci seytaane ànd ak di sëlmal di julli ci suñu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi koy ñaanal xéwal ak mucc di ko ñaanal waa këram di ko ñaanal ay saxaabaam di ko ñaanal ku ko safoo nekk ca la mu nekkoon ba bés penc di taxaw bu fekkee dellu waat nañ rek dañ leen di fàttali ñi nga xamante ni soxla dafay nekk ci seen kanam imma mu nekk liggéey buñ doon wut mu tëleen wala ay këyit yuñ doon déposé xaar bi yàgg lool mënuñu cee jot mu jaral leen ñuy dem ci ay nit ñu di leen di jox ay mbir ñu di ko takk ne mbir mi boo ko takkee boo demee sa ajo dina faju mbokk mi en tant que jullit dafay moytu di wékk yaakaaram ak ngëm yàllaam ci lu mu takk loolu dafay màbb ngëm yàlla yonent alayhi salaatu wasalaam daf ñu wax ne nit ki bu takkee dara yàlla daf koy bàyyee ak loolee mu takk te loolee mu takk du ko dolli lu muy ak toroxtaange ak perte kon la ngay wuti bul ci yaakaar loolu ngay takk ñenn ñi ñu di leen di digal demal nga wut nangam ak nangam nga def ko nangam loolu yépp moytul di ko def en tant que jullit en tant que ku safoo yenent yàlla muhammad kon yow moom nga xam ne ñëw nga ci réew moo xam dangaa tukki moo xam dangaa nekk ci sa réew di wut liggéey mu tëla dellul ci istigfaar mooy dellul ci tuub di wax astaghfirullah lu bari waaye nga jël ñaan bi ma lay bëgg a jox yonent alayhi salaatu wasalaam jàngale ko mooy boo tollee ci jamono boobu del faral di ñaan ñaan bi muy allahumma laa sahla illa ma jacaltahu sahlan wa anta tajcalu alhazna ida sita sahla bu fekkee yaa ngi def ñaan bi loolee yàlla mën na koo jàppandal ba nga jot ci te boo ci jote it dana la jik yow moomu nga xamante ne it am nga xéewal moo xam xéewal bi dafa ñëw ci say mbokk wala dafa ñëw ci sa wàllu alal wala dafa ñëw ci sa wàllu njaboot boo bëggee loolu dara doo ci am lu cay dugg mu nekk lu lay metti nga la boo ci jotee rek na nga jàng ñaan bii mooy macha allahu la quwwata illa billah loolee doo ci gis lu la metti mukk allahuma lu muy dee moo ca egsi kon nag mbokk yi lii la ñu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu moytu am takkal lii am diwool lii am suulal lii jullit dafay moytu loolu li yenent bi jàngale wax naa leen ne su fekkee am nga ngëm gu wér ci loolu incha allah boo ko defee rek di nga ci gis lu lay dimbali ci say mbir ba nga mën cee jot te boo ci jotee it daf lay jig lool te dafay ànd ak barke barke mooy li nga xam ne bu duggee ci lu tuuti day def mu matale ñépp bu duggee ci lu bari it day def mu barkeel lool nit ñi di wax ne bari le barkeel le moo ko gën kon yàlla nañu yàlla defal barke ci suñu mboolee mbir yàlla jàppandal ñu fajal ñu bépp aajo boo xamante ne ñu ngi ñu koy wut te buñ ko jotee it yàlla na nekk njëriñ waaxiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu